nous avons confiance à la justice de notre pays donc euh, ñi ngi déglu ba ñi xaar parce que ñi ngi toll ci plaidoyer puis ñi ngi gis ne que juge bi il est attentif mi ngi déglu donc euh, ñun daal on a confiance ñoo ngi xaar waaw wóolu nañ suñu justice su dëkk ñoo ngi leen di déglu. gëm suñ borom euh, wéeru ci moom atawakaltu ilallah te ñu xam ni tamit yàlla lu mu tudd ci nit kenn mënu ci dara rien n'arrive sans la permission d'Allah subhanahu wa taala donc ci moom la ñu wéeru euh, di wettalikoo suñu ay mbokk di wettalikoo suñu ay am di jàmm ak suñu ay xarit toog nag di xaar ndax xam nga xalé yi ñom bokku ñok mag ni ñi réagir mais sant rek parce que gis naa ni ci biir loolu yépp ñom ñi ngi euh, am jom di muñ di comprendre aussi ni ñu leen koy expliquer xam ni seen papa deful dara lekul xaalisu kenn

dama dama xam nit ki xam nga nit buñ ne diw moo def lii booy ànd ak moom di nga xam ni kii moo ko def wala defu ko du dëgg donc dama xam nit ki gis ni muy taxawoo nit ñi ni mu baaxee musuma ko gis mu am benn demele ak wala xaalis ak kenn man man bokk man gisuma ko musuma xam loolu ci moom li ma ko gisal daal mooy jub euh, bëgg ñëpp taxaw ñëpp loolu daal laa xam ci moom te loolu laa koy seedeel c'est quelqu'un qui a toujours œuvré pour le bien c'est quelqu'un qui n'a jamais rien demandé. C'est un homme désintéressé complètement, qui n'a fait que son travail à la ville de Dakar. Donc euh, je trouve cette situation regrettable. Je pense que c'est en quelque sorte, ben, il est en quelque sorte, euh, il a été abusé, je pense. Il a été abusé sur toute la ligne. Mais je ne pense pas que M. Diop ait fait vraiment quelque chose de répréhensible. Je peux dire Métis. par rapport aux enfants, on a une petite fille de 3 ans, Rosalie, qui me demande toujours après son papa. Et j'ai du mal à lui dire où, est-ce que son papa se trouve. Mais elle, la réponse qu'elle a trouvée, à chaque fois qu'on lui demande où est ton papa, elle dit de Fotouki. C'est la seule explication qu'elle trouve et je suis vraiment peinée quand je la vois. Je sais qu'elle est très proche de son père. Elle aimerait avoir son père près, euh, près d'elle. Je trouve que c'est vraiment regrettable, toute cette situation-là. On est vraiment très peinés, on est très éprouvés, nous les épouses.